yaa latifu ñu def ko juróom ñeenti yoon tëjee ko salaatul fatih muy ñaan goo xamante ni mboolem ko ñëw ci xadara bi moom la ñu lay ñaanale ndax suñu maam Cerno seydu Nuuru moo ko ñëwoon indi ko fii maamam Cheikhu Omar jox ko ko mu jóge ci Cheikhuna Tijaani jóge ci yonent bi wàcc ci borom bi fa tabaarakallahu mu ni ko mboolem ku ne ci xadara bi alaaja mën njëgeen nañuy ñaan ci ñaan boobu bu ñu ci ñaanee yàlla nangu ñaani alaaja mën njëgeen nag ni ko ndax am naa ci ndigal ngir njaboot gi mun ko am nga ci ndigal ak koo ci jox ndigal sëriñ Muniru ni nag saa bu ñu ko dee ñaan nañu ko wax ci kaw ngir nit ñi dégg ko jàpp ko ku amati aajo ñaan ci aj ko ci tawassalu bi jaahi fay na jaahi inda allahi alazim la yonent bi ni woon jokku leen ci sama daraja ndax rëy na fa borom bi kon su ko defee ñun ñëpp ñu àndandoo ko fatiha ñetti peeru salaatul fatih yaa latiif ñu def ko juróom-ñeenti yoon tëjee ko salaatul fatih sëriñ bi tej ñaan yàlla yàlla sàmm ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa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 لخوى الخاتم لما سبق ناصر براقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم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 آمين صلى الله عليه وسلم آمين